and basically it takes away your sensibility. It takes away who you are supposed to be. We've that interview um, by the PRO of the Drug Enforcement, National Drug Enforcement Agency, who came to our studios earlier um, this week and spoke to us about drug abuse. What he's trying to say is it's a repugnant plague within the country and it affects so many people. Young people are into it. Some even old people are into it. But how can you be a good, good parents tomorrow if you are a constant drug abuser today? Mm -hmm. How could you help your own children to make a better future out of themselves when you cannot even make one out of for your own? Especially um, some brothers say, some magi you know, dëgg dëgg daanaka seen mbir moom. yeah it's like youth si ñoo si gën a moo tax ñuy gën a wax. because mm-hmm. soo seetee ndaw ñi léegi nuñ si duggee dafa ëpp waaye dafa da ngaa gis ne tamit mu ngi wàññeeku especially in the Gambia because NDA nu ko kooku waxee si interview bi they working on it and they doing their best to see that muy wàññeeku because comme time bu nu daan gisee nga toog si mbedd yi ngay romb sax nga gis gaay fu ñu toog benn place di tu dafa laa xëy sa nga xam ne dëgg dëgg lii la gaay di def waaye léegi loolu dafa gën a wàññeeku although mu ngi am ba tey but utee naag time boobu noonu soo seetee rate bi léegi dafa gën a wàcca te jëmi la um, soo ñëwee nekkul rek ci taay o marijuana ñu ko dee ooyee am mm-hmm. nañ sàngara am nañ um, héroïne um, ñu dee ooyee naka sa tupentum What's that? okay, don't make me look like I How did you know? <laughs> okay, because uh, yesterday I, I, did a research of my own. Mm -hmm. I spoke to so many young people and they told me some of the names that, that I constantly use and I thought, yes, yeah, learn from it. They had marijuana, that's aka Thai, um, <laughs> or, or some call it MJ, and they have Juventum, they had heroin, cocaine, alcohol, and, you know, heroin is like... Um, powder and cocaine also the same thing. Juventum is like um, a liquid form of, you kind of sniff it, you know, it is Essence, Essence, to my surprise, Essence, they muna mandilo guy, and they use it. Yeah, I think they just... Kerosene. Kerosene? Yes. Seriously? Then could they sniff and then, yeah, definitely diesel I don't know, but i am not look to guide ko dee def daal fanaaf leen I'm not hyper, as they say. Wow. but it doesn't help xam nga nekkul loo xam ne comme du leen dee daf leen dee tàggale and they don't know it ñoom they feel ne suñu defee loolu rek si lañ dee nekk si and they keep on doing it because their system is used to it they become addicted to it. Mm-hmm. understand nga comme interview lu mu ko waxee mu ne like young people ñoo si gën a dugal léegi. Okay. Yeah. Um, the number to call is written on the screen, 437-3910. You can call and talk to us. Um, wale kacha um, mimo um, drug abuse locality. Um, dolka fu niya ma, niya problemo soto, niya ma, akela problemo jarale. But inte ma ja ka jari nyamen kasi akala fale rek. Ite, ite mi problemo kono, ibe kuko kole ya kuko kono. Ena ye drug uh, lafawo kan, ye sirani fengo lafawo kan. Um, obete ma kwele nyadile. Uh, well, Alfalun, this is the opportunity we have to talk to almost all young people, especially mm -hmm. to stay away from drugs. Nakajana, you know, na na for demanding na jibe. Exactly. And numbers yanki screen me anything Mungal ngeen call. Waxtaan ak ñun ci lu ñu waxtaane 4373910 or 4375905. Actually, today I'm not forgetting the numbers. <laughs> Who forgets it? I don't. <laughs> <laughs> I don't forget the numbers. Anyways, yeah. um, comme mbokk yi nu ngeen ko xamé rek WhatsApp la suñ fi ñëwé bës bu am um, saturday bu nekk 3 ba 4 lu ñëw waxtané dafa nekk lu ama am solo ñu bëgg askan wi yëpp bokk ko ak ñun ñu waxtaan ci so su fekkee nag ñoo seetaan mu ngeen ñu ko ci number ci nekk seen screen bi. am nañ call hello whatsapp hello. hello. yes hello whatsapp okay ok. ndax la tam ne ko la. 재판을 내요. 음, okay. 아, 다들 꿀로 소파를 낸대. 니모 꿀로. 야 꿀로 디모라. 아니 이슬람오라. 아주 꾸길은 야란 거 아니 이슬람을 맘다. 음, 더냐. 아, 이제 나한테 뭘 내가 할 빨리 뭘 내가. itu ada bulunya dari aku lupa ya aku mm-hmm. mm-hmm. mm, ah, mm. jadi etin yes lah mm-hmm. iya iya nya dari aku definitely eh ah, todi ma malas dari waraka oh, ah. toɗima ok a baraka bake a baraka bake yaji wo komom toñaliti ko i ɗiŋol ñaake mansa ɗiŋoti folo kana mo jowaya so whatever come again <laughs> i ɗiŋol ñaake mansa ɗiŋoti folo kana mo jowaya okay if, if you turn um, sa dom soko defee buur mm -hmm. yañi ka si mom Okay. And, and you can fail employee. Like you'll be the first to, face to pay tax. Like the consequences, no matter death, um, you'll be the first to face the consequences. Before someone else. Before someone else. Because secure mm -hmm. in every day. Yeah. So uh, sadom soko yero lumwa degala so yero in a way ima kulu kulu nyado bije. Um, so, sini sama sina minke ifolo le baji le nyala. Yeah, lulu degala, but hanga. It's like we have another call. Hello, what's up? Hello. Yes, hello. Jamila. Now. babe nadi mi jandorok a ah, wala programme o diyata bagara a baraka baki to dima e pat ok i lafta kam muni lafa molla programme ota a kam ɗon peut être very good ok mm Okay. Okay. Mm -hmm. Can you speak a bit louder? ah he's gone. ah he's gone yes. thank you very much. ok comme koola boobu lu mu explain te nekk ok loolu tamit am na solo sometimes waajur yi dañ si dee am fànna tuuti dañ si dee am tuuti part ba da ngaa gis am na yenn doom yoo xam ne waajur yi dañoo def seen kéemtalaay kattan waaye du tax pare di nga am ñoo xam ne dañoo nëbbu tamit. because dafa am ñoo xam ne sax dañoo dem school wàcce school oo jël a break dem fexe nu ñoo amee chance pour dem ba mun a am chance si drugs rek taay marijuana comme noo ko de waxee after ñu waat classe. oo ñu wàcce school def ko dem def nekk ci seen xarit yi xam nga suñ paree suñ paree doo la ñibbi so da nga gis ne yu mel noonu doo mën blame parents yi because dafaa nekk ne yow doo mës a gis sa doom mu ngay def façon kan, yooyu so doo ko expect ne sa doom mu ko def we have a caller hello ya. hello hello yes um welcome to the show hello hello what's up hello hello, hello. Um, jaama rek sant yàlla ah mun ngaa wax si kaw tuuti ñu mun laa dégg jaama rek sant yàlla bari bari tur bi ak fay koole oh, ok yow yow loo am pour yokk si show bi hello am ku yokk si show bi. ah kooku dem na ok kooku dem na line network bi setut so bu fekkee yaa ngi seetaan mun ngaa try nga koolaat ok comme lu ma doon comme lu ma doon wax rek. soo waxee parents yi tamit sometimes you blame them sometimes you don't blame them yeneen mm. parents yi tamit soo waxee li nga wax léeg because dafa am parents yoo xam ne seen doom bi dafa dem ba nga xam ne mënaluñ leen dara. xam nga dañ leen bay rek ci lu leen neex lu leen neex ñu def lu leen neex lu leen duñ def rek seen parents ñom dañ melni ni mënatuñ ci ñom dara te sa xalé bu sa dom la because léegi dama lay gis même jigen sa sax da nga dem gis xalé bu jigen tok yalla bu def maag nga fekk fa xalé bu jigen tok enu si sa tek ko ci booram fa ne nak waaw moom mo jël ndam li xam nga they see as something lo xamne is classy daf leen day yokal class oh fekk is not good for their health ñu jëm jël tay yow nga nek xalé bu jigen jël tay diko tuh because yaangi ngi bugg pour ànd nekk benn ak xale góor yi xale góor nga xam ne xamuñ lu gën ci ñoom toppaloolu di ko def itam nga toppalan di ko def nekk loo xam ne dafa nekk loo xam ne am solo la pour ñu toog fii waxtaane ko ñu bëgg a waajur yi chance bii lañ am pour mun ñoo kool bokk ak ñun waxtaan bi wax ñu ñoom seen xalaat lan la ñu ànd advice young people ñoo xam ne ñu ndaw ñi ñun ñëpp si lañ bokka waxalante ne yokkalante xalaat ndax du yeah ñoo xamante xala daanaka ñaari boor yëpp la jigéen a góor ñëpp a ngi si kamin um, fa sañten wala mu um, drug abuse tubaabal kay drug abuse um, ka sirani fengo maam yalan ko assez kendikula wala aye la mi yalan ko ni be fambuli tafula wala wala takela um, wala drug abuse bari lafto alfal fana yela fondinkila alfal be be tema am yela telefono sika na nyo ya mari na jibembe solution min kele kele yekantung national law national drug enforcement agency bela katuke bari sa intol non se ko um before we go any further we take a quick break mm -hmm. and let's take a look at the victims here yeah and see what exactly what it does and have an IQ as, a, as an, I mean, example as to how to deal with it mm -hmm. exactly. take a quick break I um, started smoking marijuana um, off and on, you know, a couple days a week. And then it got like heavier and heavier to every day. And then it got to like 10 times a day or more. I use marijuana as a gateway drug. I started with that and then I liked that, so I went on to acid, and then, you know, I thought acid was cool. And then speed was around, so I did speed, and, you know, just whatever else came around. I was with my boyfriend, and he did it, and you know, I wanted to fit in with my boyfriend, you know, because him and all his friends did it. So he had some one day, and we were in a park, and, you know, he just lit up a joint.